te xool ndax liste candidats yi ñu leen indil est-ce que am na ce sont des nationaux américaines wala italiennes ou françaises fu ñu ko jëlee fu ñu ko ñu ko sinon sinon deux mille vingt cinq la ñu voté sinon deux mille vingt cinq la ñu jëm donc rôle rôle rôle conseil constitutionnel mooy recevoir mooy mu jot li ñuy wax les les les déclarations sur l'honneur maintenant si par extraordinaire mu am double nationalité am feeñ. conseil li muy def mooy retiré ko ci liste bi élection yi continue amul leneen beneen beneen bi am ko benn argument bi ñuy bi ñu bi ñuy bi ñuy bi bi euh, Macky Sall sukkandiku mooy crise institutionnelle mais assemblée soo amoon crise du voter la euh, proposition de la Brigade Demba Ndiaye mu ngi continuer def liggéeyam normalement conseil constitutionnel mu ngi recevoir recours yi donc amul benn crise dafa jàpp ne ñi ngi accu ñi ngi accusante parce que moom dafa ne juge porté na plainte fii ay député député tamit ñu ngi wut euh, commission d' enquête parlementaire kon crise am na. non loolu du crise ah loolu du xam nga crise lan la mu dem ba bloqué fonctionnement institution yi loolu mooy crise institutionnelle mooy crise boo xam ne dafa dem ba assemblée dootul mën a liggéey dootul def liggéeyam justice dootul mën a def seen liggéey mais pour le moment assemblée ñu ngi def seen liggéey normal dara terewul a def seen liggéey conseil constitutionnel ngi def seen liggéey normal donc amul benn crise ainsi ay tappale kese la ay kese la ay lay rek la et soo déggee après ku ci mu ni Latif Coulibaly lim déclaration bi mu def ak le journal le journaliste bi nekk Figaro li mu wax ma mi ne woon woon a woon a Macky la veille le vendredi mais moom nee na buggul entre guillemets islamiste yi jël réew mi damay préciser ñu ko ñun sénégalais xooluñu kii islamiste la xooluñu kii que chrétien la xooluñu kii lan la ñun xam nga lan nañ bëgg un patriote ku bëgg suñu réew fas yéene ko defar fas yéene ko défendre ba sa si sa ba ba ba sénégalais yëpp gis seen bopp ci seen réew islamiste la moom a gën a ñii ne ñii fi ne bi islamiste pur et dur barbu de sol yére yu gàtt man de moom ñoo ma gënal Macky Sall ak ñi ma dal ak samay morom donc argument boobu dañu ko tegal fële donc amul crise institutionnelle ah, ensuite soupçon de corruption bi man man comprendre ma que yow nit ki nga soupçonné ko ne def ko def tu le déclares coupable mais mais mais amul enquête comme même commission d' enquête parlementaire tàmbaleegul liggéeyam kay def na plainte am chez le procureur kenn kenn kenn traité gul plainte bi nga xëy benn journée ne donc accusé nañ leen donc nañ nañ nañu arrêté élection yi non loolu ay ay ay lay la rek ay tappale kese la ay li mu fi wax yëpp déglu naa discours bi mais yëpp ay tappale kese la. amul moo doon élection bañ am. mais bi biñ ci paree euh, président am na ñu ne coup d'état constitutionnel la mën nañ ko tuddee noonu. ah waaw waaw man sax bind naa ci Facebook ne ne damaa ngi dénoncer ce coup d'état constitutionnel parce que coup d'état c'est quoi mooy nga jaar loi bi ne fii lañu war a jaar pour accéder au pouvoir. wala toog ci pouvoir bi yow nga ja def say artifice say tappale ba bugg a toog ci ba bugg a toogaat ci nguur gi c'est un coup d'état c'est pas un coup d'état simple du du coup d'état militaire parce que du militaire yi ñoom ñoo def coup d'état bi mais yow yi nekk ci nguur gi yaay jéem yokk sa yokk sa nguur mu gën mu gën a yàgg coup d'état la parce que li nit ñi wax dëgg la à partir du 2 avril juridiquement Macky Sall il n'est plus président du Sénégal. ah bon ah oui oui oui. loolu naka ci pexe. li ci pexe assemblée yokkal nañ ko lañ def assemblée kon lu mu article 31 bi ñu modifié. article 31 moom. moom laa doon bugg a mujjee d'abord article 31 ñaar ñaar laa koy reproché te dama jum dama jum euh, proposition de loi bu bi assemblée ñaar laa koy reproché ci constitution bi dañu prévoir que dañoo encadrer lu ñuy wax proposition de loi xam nga projet de loi moo jóge ci gouvernement bi jaar par conseil des ministres ñu adopté ko après envoyé ko au président de l'Assemblée nationale mu jël ko jaar ko par les commissions après ñu dem dem plénière ñu door ko appelé comme ni ñu doon def pour ki dem ak euh, proposition de loi bi mais proposition de loi bi député yi ñoom ñoo koy ñoo koy def naa la jox la loi la loi Ezzan bi bi bi bi bi euh, bi amnistie woon euh, l'affaire la ñoom Clédor waaw l'affaire Babacar Seye waaw et donc exactement noonu la mel ñoom loi proposition de loi la or oh, proposition de loi constitution daf ko daf ko daf ko daf ko daf ko daf ko organisé dafa ne député bi nga xam ne day def proposition de loi su fekkee ne proposition de loi ba dafa entraîner des dafa entraîner des charges publiques dafay entraîner des charge publiques député bi def proposition dafay prévoir ay recettes complémentaires mu ngi ci constitution mënuma la wax article mais gis naa ko dem rek dañ ne proposition de loi boo xam ne proposition de loi su ko député dugalee ci biir proposition de loi bi suñu xoolee dafay entraîner ay charges publiques député bi dafay prévoir dans la ci proposition de loi bi ay recettes complémentaires ay xaalis fu ñu wutee xaalis pour mën a euh, compenser charges yooyu parce que Macky sax li mu def du report élection annulation élection la non annulation la parce que ñoom li mu bëgg mooy ñu reprendre processus bi pour que daf ko annuler dafa annuler parce que su fekkoon ne pour vingt candidats yi ñu jàpp rek la ñoom ñooy dem du du du du jël décret bi parce que dans tous les cas euh, euh, ñi ñi ñi jëloon ñoom ñooy ñooy demaat mais li mu bëgg mooy ñu reprendre processus bi et donc imaginez depuis bi ñu commencé di préparer élection yi wax ma wax ma candidat yi liñ ci daj mais état bi lim ci daj ci wàllu xaalis depuis la mise en place des commissions d'inscription sur les listes électorales dema dema dema dema dem ba ba ñu ne suba veille campagne bi ñu arrêté procesus bi imaginer léegi yow suñu naree reprendre processus boobu depuis le début charge yi nga xam ne moom lay moom lay entraîner et loolu ci maanaam. incidence financière or proposition de loi bi prévoirul benn compensation financière et donc constitution bi dafa ne une telle de loi de loi doit être déclarée irrecevable dañ ko war a déclarer irrecevable loolu mooy un deuxièmement constitution bi article bi mu ngi tàmbalee article un. ba article cent trois naa tudd nga ko léegi léegi xam nga Macky bi muy ñëw dafa fekk constitution bu Ablaye Wade bu en bi léegi ñu amoon problème effectivement ci affaire euh, trois troisième mandat bi parce que góor gi dafa bëggoon ñu yokkal ko yeneen deux ñeneen ñaari at pour mu mën a eggali ay projet ñun ñëpp loolu fii lañu fekk léegi Macky bi mu ñëwee en 2012 bi mu dafa ñëw constitution bi li ci bind mooy mandat bi sept la. kenn du modi kenn du mën a modifier article boobu lu dul par par référendum loolu tax en 2016 mu organiser référendum mais bi muy defee référendum bi moom sax doon na ko wax di wax ne sécuriser na mandat yi verrouiller na mandat te loolu ci centre à cent la ko def mooy dernier article constitution bi daal ñu ngi ko tudd sax de la non de la révision la ñu ko tuddee article boobu ñu ngi ko tuddee de la révision maanaam naka la ñuy def ba réviser constitution bi génn génn na article bi génn na prérogative yi président am pour euh, réviser génn na prérogative yi député am pour réviser constitution bi mais su demee ba ci dernier alinéa bi mooy le septième alinéa fa la génn foofu moom il génne ko lire ko ah. maa ngi koy jégalu de <laughs> maa ngi koy jégalu léegi ci dernier alinéa bi dafa ne ci dernier alinéa bi mu ne mu ne ah c'est l'alinéa 7 mu ne la forme républicaine de l'État le mode d'élection la durée et le nombre de mandats consécutifs du président de la République ne peuvent faire l'objet de révision mu delluwaat ci ne alinéa bi même dañ ko protéger dañ ci dolli enfin ne l'alinéa 7 du présent article ne peut faire l'objet de révision